saar woo xam ne moom rek la yonentu doon jàng yonentu daaw ko def sallallahu alayhi wa sallam illaa fil jumaati jumaa wala deen ak ñaari feet yi jumaa ak ñaari feet rek moom la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jël saar woo xam ne nii jumaa gu jot moom la cay jàng wala feet tabaski nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam laa yaa ngi du saar fi salaat ci julli bi ay ne ci jëmmam laa yaqara du jàng illaa bihaa lu mooy saar woowu lool daaw ko def illaa fi jumaati lu mooy ci àjjuma wane ne nag ñaari feer yi àjjuma daal tabaski Korite rek la daan jël julli yoo xam ne yooyu rek la daan jàng waaw maa fi saari salawaati waaye ci mboolem julli yi waaw julli des na moom faqad zakar tub na Abu Daawud ak min hadiis Amr bun Shuayb ci hadiis Amr bun Shuayb naa bi mu jëlee ci baayam an jëddi mu jëlee ci maamam andoon bi sallallahu alayhi wa maa min al mufassali amul ci saari suratum saar saweesun bu ndaw wala kabir du caagen bu mag illaa waqat samatu lu muy dégg naa rasulullah yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa yow moom muy jiitaan naa si nit ci moom ci salaatil maktuba si julli farata yi saar woo gis rek suyu ndaw yeeg yu mag yi ci saar xam ne ni diggante saar ak morom ka danay bëri bismillahi rahmaani rahim bëri na fa daal diggante saar ak morom ko gudduut saar woo gis rek daanaka yonent ko farata rek laa wax de moo bu gudd wala bu gàtt kon julli yëpp daan jël benn saar rek jàng ko waaye xajuma daal ak ñaari fer yi moom la daan jégleel mm, saar yi boppam wa kaana nekkoon min hadi yi ci njubam xiraata sooti jàng saar kaamilatin ba aji mat yonoon si daan jàng saar yi ba mat sëkk waaye dagg saar daaw ko def wara bu a amaana mu jàng ko ci rakante ni ci ñaar rak jël benn saar séddale ko ci ñaar rak maa a saar ba dégg nga waaye it bëriwut léeg mu jàng njël benn saar ga rek am foofu waaw ma xiraatu awaaxir soor yi waaye jàng mujj saar ya waaw saate ak digg ga kooku fa la ñuy wax ko anu ci moom jàng mujj ak saar mu jàng ci digg ba rek ba noonu kooku yonentu daaw ko nee na loolu moom gisuñ ko ci moom daan na jàng saar bu ma sëkk moo doon moo moo ëpp ci lim daan def léeg-léeg mu jàng benn saar ci ñaar rakk léeg-léeg mu jàng njël benn saar ba waaye jàng mu ak saar ak digg ba rek kooku xamuñ ko ci moom waaw ma xiraatu suurate ni waaye jàng ñaari saar fi rakaatin ci benn rak fa kaana nekkoon ne faxlu di ko def fi ci naafila jàng ñaari saar laay bëgg a wax jàng ñaari saar ci benn rak ko nag daan na ko def ci naafila waaw mal fard waaye waaw maa fi fard waaye ci farata falam yox fasu wuttu ñaan wu ci moom yonentu jàng ñaari saar ci benn farata moom daaw daawu ko def wala daal nettaluñ ko waaw ma hadis ibnu Mas'ud wa hadis ibnu Mas'ud de ko ba mu wax ne nii naka man la arifu xam naa anna zaahira saa yu nend ya mooy yu niroo ya alati yi nga xam ne kaana nekkoon na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yuqrinu di lënkale baynahunna seen diggante dégg nga asooratee ñaari saar fi rakkaat ci benn rakka mu ne saar yi nga xam ne nii saar yu jege lañ yonent bi daan jël ñaari saar di ko jàng ci benn rakka xam naa ko moo dee rahmaan ak najmi fi rakkaat ci benn rakka ak iqtaraba fi rakaatin ci benn rakka ak tuuri ak zaariyaat fi rakaatin ci ab rakka ak izaa waqaat ak nuun fi rakaatin ci ab rakka alxadis ba hadis ba jeex ak la waxale xam nga yooyu ñaari saa yu ne daan na ko jàng ci benn rakka loolu ma Mas'ud nettal na ko fa haada mu ne lii hikaayatu fi'li nettali jëf la lam yu'ayyan la ñu rewut mahalluhu barab bu mu ko doon defee hal kaana ndax nekkoon na fi fard ci farta aw fi nafli wala naafila kooku ràññi ko woo loolu muxtamil aji jamtalu la mën nekk ci farata la ko doon julli mën naa nekk ci naafil rek laa wax de kon lay wa leerul dégg wa ma qiraatu suratin waaye jàng benn saar fi rakaate ni ci ñaar rakk maan mboolem seen daan na ko def waaye bëriwut faqala ma kaana néew ne dem nekkoon yefano doon ko def rek laa wax de mm, dégg nga wa zakka tudd na abu daawuda an rajulin min juhayna jëlee ci ab góor gu bokk juhayna andoone moom yonent bi sama andoone moom góor googu sama dégg rasulullah yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yaqaraw muy jàng fi subi suba isa zulzilat fi rakaatee ni si ñaar rakaa yi kel tahima ñoom ñaar yëpp benn saar woolu jàng sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne fala adri xaw ma nag na see ndax fàtte na rasulullah yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng saar wi jàngaat ko ngir fàtte am xara wala jàng na zaaliku loolu am dañ ci tey xaw ma moo ko tey <coughs> dégg nga waaye daal yonent bi lu mu def rek ba noonu loolu moom njub la kon duñ ko jàppee ak ak tay ak fàtte jàpp ne rek da koo def ngir wane ne mën naa nekk rek laa wax de yonentu def ba pare yàlla gàggantuur ko kenn gàggantuur ko après ñu naan fàtt laan tay la loolu moom kenn xamu ko rek laa wax de bu doon jumte rek kon yàlla dana dana dana ko dana sant kenn ci nit ñi mu fàttalik ko rek wala yonent bi fàttalik ko wala boobu moom mu leeral na lii def ko defoon ci njumte waaye leeral waxu dara bàyyi noonu daf di njub wax rek ndax mooy jëmmi njub bu ñu ubboon buntu boobu daal su yàggee daal ñu ne mm. ah jëf ji mën naa am yoon dafa fàtte def ko waaye du sunna kon bu baax lu bëri yàqu rek laa wax de façon laa fasalal fii taalati ci guddal gi mu guddal sallallahu alayhi wa sallam rakante ula rak bu njëkk ba ala saaniyati ci rakam ñaareel ba min salaati subi ci jullit suba rak bu njëkk ba moo laa gën a gudd rakam ñaareel ba moo tax loolu luñ copp ci ngir Malik waaye nee na daan da ko daan def di xaar nit ñi ñi ñëpp mën a teew moo ta rakk bu gudd bu njëkk bi ko daan guddal ndax balaa rek fekk ñëpp teew rek laa wax de wa kaana nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam yutiilu di guddal rakaatal ula rakk bu njëkk ba la saaniyati ci rakkam ñaareel ba min salaati subi si julli suba wa min kulli salaati ak julli gum mën doon rek rakk bu jëkk ba mooy gën a gudd rubuma kaana amaana nekkoon na yutiilu haa di guddal dégg nga guddal rakk bu njëkk xataa laa yasmaw ba duñ déggati waxu xadamin ndëggu tànk maanaam duñ gis kuy dugg ndax dana dana ko guddal ba ñu war a dugg ñëpp dugg ba pare man ci jàng ma rek na xam ni da nga dem ba si kuy dugg ci jàkka ji ndax ñu waroon a teew yëpp teew nañ sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moo doon la ba kaana nekkoon yutiiru di guddal salaatu subi julli suba ak sara lu sa min saayiri salawaati ci mboolem julli julli suba moo gënoon a gudd ci julli de wa haza lii li anna quran alfajri ndax alquran ak fajar mashhudun lu ñuy seede la yashhadu dana ko seede allahu yàlla taala kawana wa malaikatu ak malaaka mi dañ koy seede wa qila wax nañ ne yashhadu dana ko seede malaikatu léegi malaaka yi guddi wa nahaar ak bëccëg gi dégg nga malaaka yi nga xam ne nii ñooy malaaka buñ julee fajar ñu war a yéeg malaaka yi wàcc nag ñu daal di dajee waaw ñoom ñëpp dajee nag di teew teewlu julli suba gi dégg loola waral ñu kon lu ñuy teewee la alquran jooju malaaka yi guddi gi bëccëg yëpp koy teewee rek de wal xawlaana ñaari wax yi nag moom ni yaani lañ tabax la ala anna nuzula ci ne wàcc gi al ilaahi gi ka jóg yàlla xale du nax day sax yeneen xidaay salaati subi ba jeex ak julik suba aw ilaa tunay fajiri wala ba fajar ga guddi gu nekk rek yàlla dana wàcc ci ga naan ku koy mu nangu la ku koy jégalu mu jégalu la dégg nga wàcc googu nag dañ ne fekk jullee guñ suba rek mu ngi am ñu ne déedéet bu fajar xare xase xar rek jeex na dégg nga su ko defee bu fekkee bopp ba ñuy julli suba yàlla ngi wàccee kon alquran alquran fajar gi nag kooku kon yàlla yërmande yàlla gaa ngi wàcc di ko teewee dégg nga malaaka yi ñu ngi ko teewee bu dee bu fajar ga la nag ak kooku moom mën naa malaaka yi teewee ko waaye yërmande gi moom dem na rek laa wax de waqala daroon na fii ci moom haza bii waa haza ak bëre de ñu ne daal yàlla bu wàccee fekk julliwuñ suba rek du yéegaat ñu ne bu bu fajar jotee ñaar na wàcc gi nag mooy wàcc gi yërmaande rek laa wax de waaye dan ba tey fay naa naka moom lama naqasa ba mu wàññi ko xasal rakaat yaa li mu rakk yi juróom def nañ tatwiida guddal ko xëy na dan muy remplace amma naqasaru la wàññi na ko mais naa di ci lim dégg suba ñaari rakk rek la kon liimi rakk yi dafa wàññeeku moo tax ñu guddal ko guddal jàng yi ngir la wàññeeku ñi mën ko remplace waaye dan ba tey fay naa naka <coughs> fajar takun dana nekk xaqi ba noo mi mu jëg nelaw wanaa su fekk nit ñi mustari xona way noppul lañ loola waral ñu war koo guddal ndax fekk nañu noppul rek de waaye dan ba tey fay noom naka ñoom lam yaa xudu jëluñ lam yaa xudu wuñ kon baadu gannaaw ga fi istiqbaalil maashi jublu dundu waa asbaabi dunya sababi àddina bu bu fajar jotee xam nga ne ni ñi jamono boobu nekkuñ di xëy nekkuñ di wuti àddina ñi ngi dal daal moo tax ñu bëgg koo waaye nan ba tey fay naa rek moom suba takun daa nekk fi waxtuñ waxtu woo xam ne tawaata complot na fii ci moom asamu dégg wala lisaan ak làmmañ wal qalba ak xol li faraax yi ngir feex giñ feex maanaam dañuy dëppoo cër yëpp ay dal wax demi tamakku ne ak ñàkk dëgër ak soxla fii ci cër yooyu kon fa yafamu danañ mën a dégg alquran alquran way tadabburu ñu mën koo setantal loola waral waxtu woo ñu bëgg nga jàng ci lu gudd ndax nit ñi setantal laaya waaye nag ba tey fay naa naka fajar asaasul amali mooy cosaanu liggéey julli fajar mooy cosaan ak jëf yëpp waaw loolu moo ci njëkk ñu bëgg mu gudd nag fonteen ñu jox ko fadlan ngeen ne mi ne moom wa tatwiila guddal ko rek laa waxale waasi yi la asaaru ay mbóot la innama yaarifa naka dana ko xam man la woo kañ yàlla na ko iltifaatun gertu ila asaari shariati ci secret sharia yi ñoom daal jàpp nañu secret sharia ñoom rek ñoo ko mën a xam waaye daal bu rek abul yàlla bu yàlla may mu wax dara secret sharia yi ñu ne du dëgg ndax yonent bi waxu leen ko dëgg yonent bi wax ko moom nag ñëw na fii rek wax fi waxam yëpp ne waa wallaay bi daal mooy ko xam secret sharia yi ko xam wa maqaasida ak jubluwaay siraay woo kuma agaate ba am tax yonent woo ko nag kon wallaahi alal musaanu maa ji dimbale yaa ngi ñu bëggee seen bopp de ci yàlla jël njub rek tënk ko ci benn kuréel rek ñii ma neex ñu nekk ci njub ñii neexul ma nekkul ci njub fasul la fasal fi kay fee de rukoy ci naka lay rukoy moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waraaf ak yëkkatiku minu ci rukon wa kaana nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam ida faraxa bu paree mel xiraat yi ci jàng saar sakata dana noppi bi xadri maa yi taraaduru ci kem la nga ne dana dellu ilay jëm su moom na soo nooyem mu nooy bu baax su ma rafaa mu yëkkati ya day ñaari loxom xam nga buy kabar xamal dafay yëkkati waaye bu daan rukon yi dana yëkkati loxo yi rek laa wax de kama taqdama comme ni mu jiitoo wa kabara mu kabaar raakiyan daa ji rukon day yëkkati loxo yi kabaar door rukon woo daa mu teg ka fay ñaari téqam la rek ba tey si ñaari bëtoom yi kal xaabidi comme aji nga baale alima si ñaari xom mm, yi dégg nga jël ñaari loxo yi teg si ñaari xom yi ñaari tënk loxo yi mel ni ku ci ngëb watara mu tàllal ñaari loxom yi watara mooy mu def ko mel ni bum goog takk ci xala nga xam ne moom la ñuy xëccee xam nga bum goog dafay jub dégg nga ni bum lay tàllalee ñaari loxo yi daal day mel ni buumu xala xam nga day xaw a dem nii tuuti nii. ok loolu mooy wott fa naxaahuma mu sori leen an jën bay wet yi mel ni bu ma xala gi nga xam ne moom ngay xëcc pour sànni fetti ga xam nga bu mu góog nu mel. noonu lay def loxo yi rek laa wax de boo basata mu tàllal zaxaru gannaaw ga wa maddahu mu yaatal ko waxta dala mu koy tàllal cër yi daal di yemoo maanaam boo xoolee bopp ba daal ak gannaaw ga ñoo di yemoo moo tax wala mu sib sampur la soo bopp wala mu fi du wàcce wut ba li fi nekkee jaaru dana def bopp ba yàlla zahri mu tolloo gannaaw ga muhajirin daaji xemoog la ñeel ko rek de nga xam ne boo sottee ndox lii ci kanam lii ci gannaaw noonu la daan yonent bi di kooyee daraan yi def ko mu mel ni xoccu nga xala tàllal gannaaw bopp ba ko yëkkati dégg nga bopp ba topp tolloo gannaaw ga wa kaara nekkoon yaqul di wax si rukkon ba ne subhaana rabbil azimi tudd na ma sellak sama borom bu màgg bi wa taatan léeg-léeg yaqul dana wax ma zalika ànd ak loolu aw muxtasiran wala mu gàttal naa lay ci loolu dégg nga maanaam danaan wax subhaana rabbil azim teg si ñaan gi ñu bëgg wax ci ci kanam wala rek mu ñëw wax ñaan gi ne subhaanaka tudd na ma sab sell allahuma yow bur yàlla rabbana yow suñu yow suñu borom wa bi hamdika maa ngi lamboo sa sant allahuma yow bur yàlla yaxfir li yàlla nga ma jégal léeg-léeg mu wax lii léeg-léeg mu boole koog subhaana rabbil azim wakkaana nekkoon na rukkoon rukkoom al montaadu gañ baaxoo miqdaar ashri tasbihaatin lu toll ni fukki sabal yonentu bu rukkoowoon danaan sabal fukki yoon wa sujuud sujuud bi kazalika comme noonu daan na fukki yoon rek laa wax de si sujootam waaw waaw ma baraaw ma hadisu baraaw bun azib radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm bu mu ne ramaxtu xool naa asalaatu xalfa nabi ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam fakaana mu nekk xiyaamoo taxawaayam farukon topp rukoom fantidaaloo topp yemam dégg nga fa sajdatoo topp sujjootam fa jësatoo topp toogaayam maa benn sajdatani diggante li nekk si diggante ñaari sujjooti xariban aji jege mel sawaay ci yemoo mu ne fa daal xat fahima xat fuhima dégg nañ minu ci moom wala boog xat fahima dégg nañ minu ci hadis bi baalum ñenn ñi àndoon ne moom kaay nekkoon yarkamu di rukkoo bi xadri xiyaam yi comme taxawaayam waaye judu muy sujud bi xadri mm, lu toll nii waaw rukkoo ga de waaye antadiru muy yem kazalika comme noonu fi hada fahmi nekk na ci biir dégg si cheyun dara xëy na ñoo si dégg loolu mën naa am baraaw na mu ci loolu daf na taxawaayam ak rukkoom ak yemam dégg nga ak sujootam ak toogaayam diggante ñaari sujoor yi daanaka ñoo yemoo amaana mu nam mu ca ba taxawaay diggante rokon geeg sujjóot ba waaye nag mu ci taxawaay taxawaay jàng faate ak saar rek wax de maanaam bo bu rokon hee bu siggee noonu lay toll dégg nga naka noonu bu sujjóotee noonu bu siggee noonu waa am na ñu ci déggee ne taxawaay bu njëkk faate ak saar ga agro ko ñooy tollu way xam nga yoonu yonentu daaw julee noonu ndax faateeg saak daan na gudd lool léegi leg rek laa wax de moom nag daf né xam nañu ci déggé né taxaway jang gi mi jang jàng faateeg saar agro ko gi sujjóot gi ak gi hemo gi ñooy hemo mu ne biadal fam mi nekk ci bi dégg ci siwun dara wala wax na dëgg ndax dégg googu mom dana war laa noonu ndax moom sallallahu alayhi wasallam sallam kaana nekkoon na yaqraw di jàng fi subi suba bil maati ayati ni ci téeméeri aaya ndax yaa way mel noonu وقد تقدم جيتون أنه نمهم قراءة جانغنا في المغرب سنمس بالأعراف في الأعراف أقوى توري أقوى المرسلات ومعلوم انتقمنا أن ركوان ركوعهم وسجود وسجودهم لم يكن نكون قدر هذه القراءة تتولني جانجي لمهم للمهم كن قمنا قرر الله غدا ويدلو دنا تكتلنا عليه تمام حديث أنس حديث أنس الذي بيان قمنا رواه نتلنا أهل السنة نيون سنة أنه نمهم أنس قال وحنا ما صليت جلي وما wara ahadin ci gannaaw kenn banda rasulillahi gannaaw yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam asbaa ku gën a ñëw salaatan julli bi rasulillahi ci yonent yàlla bi sallallahu wasallam illa hazal fataa lu may waxambaane bi cey waxambaane googu dem ba saxaaba yi di ko tagg ci niroog yonent bi sallallahu alayhi wasallam te du saxaaba anas nee na gannaaw yonent ci gannaaw kenn koo xam ne nii gën naa niru yonent yàlla muhammad sallallahu wasallam julli ku mel ni niru gim niru yonent bi sallallahu alayhi wasallam anas gisul ku ko niru ci wàllu julli xaala mu ne faasas naa ñu takk fi rokon yi ci rokom asara tasbihaat nu fukki sa baal wa fi sujudi ak sa baal noonu la mm, Muhammad di Muhammad ibn Abdul Aziz haza maa qawli anas ànd ak waxe anas àndoon ne moom kaana nekk na yow moom di leen jiite bi saafaar yi si sóoratu saafaat yonentu daana te day waru koy sujjóot fukki sabal la xam nga ne safaat gën naa gudd fukki sabal lool kon li hadis bu leer la buy wan ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa yi moom ak rukon yeeg sujjóot mukk fa muraadul baraayi mu ne lépp baraaw nam mu duulu yi bëgg wax walaahu alamu yàlla xam ana salaatu nu julem sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon moo tëjee tan di la baraaw bëgg wax fa kaana nekk na isa ataala bu guddalee alxiyaama taxawaay ataala mu guddal rukon rukon wu sujud ak sujud bu jàngee lu yàgg rukon yi day yàgg sujud bi day wa za khafa bu oyofalee alqiyaama taxawaay jàng lu hem khafa fa oyofal na rukon rukon wu sujud ak sujud wa ta tan leeg nag ñee ye jam do def rukon rukon wu sujud ak sujud bi qadri qiyam yi ñu tolloog bi dal xëy kon baraaw lo na bu wax mu ne wala ala yàlla rek a xam ولكن وانا كان نكون يفعل na yefal di def daal di ko fi salaati leeli si julli guddi wax daa moom dong julli guddi daan jàng lu gudd rukon rukon yi toll noonu sujjóot sujjóot yi noonu loolu moom daan na ko def wa fenloo defam ay ren ba tey xariban lu jege min zaalika ci loolu fi salaatil kusuufi si julli muuru jant julli muuru jant yi daan jàng rukon lu toll ni jàng yak sujjóot lu toll ni jàng yak rek wax de kooku daan ko def hmm, si julli mu guddi ak julli muuru jant waxat yoo waaye njubam alxaali ba not sallallahu alayhi wa na ko yàlla doolu xewete ko taadiru salaati mooy jubal julli wutana suba ak moom rek la wax de maanaam daal bu rukkoon bu jàngee jàng yu gudd rukkoon rukkoon yu gudd waaye du xam ni jàng ya nag sujoodi sujoodi gudd waaye du xam ni jàng ya mm, loolu daal mooy li notoon ci njubam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuridu islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh